ndeysaan dafa dëggu dafa dëggu waaw ma jànkonte si nag si lu métti loo xam ne dund naa ko mm. man damaa dund lu métti sama àddina mm. dama ko dund si daara dama ko dund si kër dama ko dund si ay itte man sama nijaay indi na ma dakaar mm. mu bokk sama yaay moo sama yaay ñoo bokk yaay bi mu ma indee dakaar mu génn dem tukki Europe wax kim dëkk na ko bu bàyyi dikkee génnal bagage mi mu dem fu xam na fa dem seen nijaay boobu mook sa wayjur wu jigéen. ñoo bokk yaay. d'accord anamu. mi ngi mi ngi Italie. bi mu defee loolu. bi mbaa bu la déggee nii du. non de loolu du dara jamono xam nga jamono dafay dox du ma ko jàppal dara parce que dafa bëggoon dafa bëggoon ma xam àddina. waaw ah. addina bu. nit loolu la ci jublu woon waaw loolu la ci jublu woon. waaw ah. parce que gis na ne mi ngi ma yor te bëgg na ma ñam tumuranke pour ma xam àddina. waaw ah. su ma toogee ak yow Dakar bu heure añ jotee damay defar sama cere ju bari su may ñëw su ma jugee Kaolack di ñëw damay defar cere ju bëri cere ju waw mm. su weeri añ jotee bu buñ toogee buñ ne nañ leen dem añi man damay suur mais su ma ñëwee si kër gi ma dëkk damay kaas cere ji ba mu waw ma def si suukar lekk dem toogaat si nit ñi mais si guddi yooyu nag maa ngi liggéey am xawil juróom-ñeenti yoon si jour bi mooy lan mooy latif d'accord maa ngi koy liggéey juróom-ñeenti yoon si jour bi mu nekk ñaata li mu nekk dafa bëri trop 16641 moom laa daan liggéey juróom-ñeenti yoon si jour bi seize mille cent quarante et un moom laa daan liggéey si jour bi su ma toogaan huit si guddi non loolu loolu loolu mbokku téléspectateurs yi il faut que il faut que ñu euh, seize mille six cent quarante et moom laa daan liggéey si jour bi am xawil waxtu bu ne benn seize cent benn toogaay bu ne. waaw dinaa ko def ñaari waxtu ak xaaj. bi ma koy liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba mujj si. Mhm. ma am feebari biir ma gis benn sidit buy wàcc si man ma dem si benn docteur mu ne ma da nga am hémorroïde ma ne ko luy lool mu ne ma kanaan dangay toog lu bari ma ne ko waaw man de damay wirdo rek parce que aw ma fu ma jëm. waaw ba benn jour ma tëdd guddi ñu ne ma dafa am ku am soxla biir buy metti bu ñëwee si yow utal jëlal sa kurus gi nga def ko si ndox mi jox ko mu naan ko bu ko naanee dana am jàmm soxla bi nag dem na fu ne si àddina waaye mënta sotti. kurus gii nga yor. boo duggatu kurus bi. waaw ma ne kurus gi gii nii waaw. bi mu ñëwee dafa toog ak man ne ma boo xamee li ma dal. Mm. yow boo xamee li ma dal. Mm. lépp loo ma laaj si àddina ma jox la ko. nan ko sa biir lay met tubaab bu weex tal la naari libaan libaanee bu weex tal. waaw ma ne ko benn cet nga am mooy problème yi biir bi métti. te bis ni tey jàppal na tàqalikoo nga ak biir bi métti waaw après ma jël sama kurus gi jox ko ko ne ko am naan bi mu naanee toog ba mu yàgg biir bi daw waaw mu ñëw ne ma man de sama biir bi démb ba léegi dafay daw mais lu ñuul kukku laay génnee waaw ma ne ko dafa am tox boo lekk boo xam ne tooke waaw tooke boo lekk bi nga koy lekk poson la te noob la te noob bi nga koy lekk dafa fekk mu fanaan moo la doon sonal mu ne ma dama bëgg nga wax ma ki la jàngal xam-xam bii nga am nii ki la ko jàngal ma mën a dem xamante ak moom mhm. ma ne ko ah nga baal ma de munoo am ma ne ko man amul benn sëriñ bu delsee benn siiru jox ma ko na ma utiliser lii Cheikh dama lay wax lu garaaw bi ma juddoo ba fi ma toll nii hmm. benn nit ci àddina musul maa jox asaraal na ma jëfandikoo lii li nga yor yàlla sunu borom moo li ma yor yàlla moo ma ko jox mais est-ce que du Mauritanie lañ la ko jàngalee sëriñ la ma fa xidma moo may li ma yor Cheikh man mboolem ku jugaan Sénégal ñëw maa lay tegal añ nga lekk. macha allah toggal naa sëriñ juróom benn at maay togg añ maay togg reer maay togg ndékki. waaw revo nañ dellu si si euh, euh, tubaab léegi biir bi métti da koy faj ba léegi waaw biir bi métti bi ba léegi dama koy faj day set wecc si man xam nga man. yow yaa faj sa bopp. man duma faj sama bopp nag. waaw man bu ma tawatee dinaa seet ku ma doy. Hmm. ma wax ko dara mu bindal ma ko mu bindal ma ko ma naan ko mu wér. ku la doy. ku loolu mais li muy bind yow yaa ko koy wax waa maa koy wax na ko defaral ma lii lu tax yow doo ko bindal sa bopp non mënuma ko parce que nit mënut a faj boppam des fois man sama njaboot gi buñ feebaree damay jooy man tubaab bi euh, naar bi bi mu ñëwee mhm. biir bi metti kurus gi nga tëmbal ko ci ndox mi mhm. jox ko mu naan yow kurus gi boo ko defee ci ndox mi boo ko naanee doo wér ba sin joon nag yàlla tey ah. méttit bu nit mën a am ah. bu ma roccee sama kurus gi daf ko si ndox bu ko naanee mu tàqalikoog moom ak méttit bu mu mën a doon ak méttit bu mu mën a doon si àddina parce que kurus gi dafa da nga ko da nga ko nàndal man damaa jaamu yàlla ba yàlla may ma li ma amee bi may am fukki at bi may am ñaar fukki at ak juróom ñaar hmm. laa njëkk a dajeeg bi mu jël kaasi meew jox ma ko naan ko ne ma naanal sallallahu taala ñëw fekk yonentu mi ngi nelaw soxna Khadija mi ngi tëdd ne ma yonentu tëdd na ma dajee fa ak Baaba Lamine Ñas doomu Baay Ñas képp kuy gis yonant li may wax nii ñi may seetaan daneen xam li may wax cépp kuy gis yonantu si guddi yi nga nekk danga nga dajeeg Baaba Lamine Ñas bi ma ñëwee ma dugg toog Baaba Lamine ñëw toog ne keekan la ñu ne ko kee da doomi Aliou Marème Ñas la mu ne ma ne ko damaa am gàcc lu tax ñëwuma nuyu la mu ne ma kenn du toog si kanam yonantu bi di jug di dem di nuyu ji keneen man bi may am ñaar fukki at ak juróom-ñaar si la lépp ñëw si man seexu amut benn nit buy toog ak man wala muy toog ak yow hmm. ñëw na la Cheikh Baye maa ko jox siru bi te yow sa xam-xam wóolu nga ko ba ba jàpp ko li ma xam man ma wóolu ko man hmm. lenn rek laa xam ne duma ko def sama àddina mooy lu bon hmm. lépp lu ñu defal nit mu doon dara hmm. wala mu màgg nekk nit koo xam ne nit ku difficile la si àddina bu ñëwee benn fan ma defal ko ko mu dem yoonam